jërëjëf madame la présidente monsieur le ministre de l'industrie monsieur le ministre chargé des relations avec euh, les assemblées mesdames et messieurs les hauts cadre et fonctionnaires de votre département chers collègues monsieur le ministre ñu ngi lay ñaanal yàlla mu jàppale la ci ministère bi la président de la république jox en tant que doomu Louga euh, man nag ay suggestion rek laay def parce que dama yor wàll goo xam ne du politique man maay président chambre de commerce d'industrie d'agriculture de la région de Diourbel loi moo ko def da dem voté ji xeex secteur privé jox la baat moo gën a jafe député ndax waaw voté boobu bala ngaa falu da nga ñàkk ay centaine de millions waaw waaw léegi nag problème boobu bi mu amee dafa am lu gouvernement bi di accompagner fi mu toll commerçant yi dem jënd seen cent cinquante hectares bëgg ñu am zone industrielle ndax loolu xalaatu sëñ Saliou la woon yëg nañu it jéego yi ngeen ci commencé def état bi it lim leen bëgg a accompagner ñoom ñoo ma wax ni nañ leen sant mais ñu soññi leen ndax dañ koo soxla lu am solo la leneen liit ma xalaat ne ñun ñooy seen représentant parce que aussi gisuñu leen ñun ministère du commerce rek la ñuy gis c'est pas normal ndax waxoon naa ko ci ay ministère de l'agriculture ndax loi moo wax ni ñun ñooy l'interface entre le secteur privé et l'État kenn warul jaar feneen chambre de commerce yëpp moi j'ai représenté le Sénégal j'ai conduit une délégation forte à Fès muy la conférence permanente des chambres consulaires francophones africaines j'ai été désigné pour parler au nom de l'Afrique francophone léegi loolu bu amee mais nañ toog waxtaan pour transformation yi ñu tudd ñu xool nan lañ ci defee ñun suñu loxo pour ñu mën a am ay industrie yu yu yu ndaw de transformation man dama man am naa 1000 pieds de mangue ci sama tool Daaru euh, Xuddus Mboro ndax domaine boobu il faut ma wax ci man damay liggéey fowuma dama yor ay mango 1000 pieds di bay soble comme sama collègue bee li mu wax fruit beeg yi Maroc maa ngi nii je vais au Maroc euh, euh, le 30 maa ngi wax dem ci tool yi waa Kénitra yi di wax ak ñoom ci loolu am na yu am solo yu ñuy def xam nga naxante amul solo gis nga politique ak littérature du yorum réew réew ku nanguwul a liggéey doo am alal ndax bu ñu la falee député wala ministre bu ñu la dàqee boo liggéeyul da ngay chômé ji ab chômeur ngay doon moo sonal gaa yi moo leen sonal chômeur parce que da ngay compter bu ñu ma dàqee deux millions yi ma doon am doo ko am mais ku mel ne man mën a lijjanti cent millions bu ma demee ñu lebal ma ko ci banque yi dàq maag bàyyi laa yemale je crois parce que damay liggéey donc man li ma bëgg mooy nga woo chambre de commerce yi il faut ngeen def réunion ñu waxtaan ci loolu ndax lii sama euh, collègue be il n'est pas de notre côté mais li mu wax dëgg la mango ji yàqu Casamance ak fruits mais dañ ko war a te industrie yu ndaw dañuy créer emploi ci biir kon am na ñuy xalaat ay xalaat rek mooy doxalum réew man li may fay cinquante personnes yuy liggéey ci man ci yi ak li may fay mais waaw c'est ça moi je paye plus de cinquante personnes yuy liggéey ci man moi je défie quiconque j'ai pas besoin de un ak un les preuves sont là palpables je suis dans trois banques yoo xam ne fu ma et puis Macky Sall boolewuma ñoom de bu ma demee ni leen lebal leen ma cent millions ñu ma wala il faut arrêter seen grimace yi grimace yi amul njariñ dama dem dans le feu de l'action moi je suis respecté dans le monde quand je parle on m'écoute je suis un expert li may wax dañ koy déglu affaire ja neex tubaab du ay tubaab Imam Mbaye Niang dama ni ko woon million laay diisale sama poos fu ma toll a ah, million boobu da ngeen demee solde du solde de da ngay dem rayante pour mën a am xaalis man damay politique dama leen di bàyyeeg politique bi ngeen toog fii di ndaw rabbi na ki ndaat say parce que jëmu leen fenn La parole est à notre collègue Ami Ndiaye. prépare Fatma